àdduna bey bëgg a jeex wala gaañu baax ñiy bëgg a dem guddi yi de tàng na lool ndaw ñaa ngi dem mag ñaa ngi dem ndax dañoo nekk ci mujju jamono wala boog malaaka bi rekk moo ñu mere lu doy waar lu dalati ci askanu làmb tey ñépp xëy sëngéem muy dudd yaaykat yi moo ne bu yàggul dara de lefi fi Pape Dia jóge di mag ci Bombardier nekkoon ku doon taxaw njabootu làmb barki Dembo Njaay ñu koy jooy te noppeeguñu tey kenn demati muy koo xam ne ba musaana sa billet ba dugg di setan làmb moom bu ne der moom du di yaaykat yi nga xeeb la nga jëndee woon sa ticket mu yàmm ca woon du di yaaykat yi kenn du di nekkoon koo xam ni aka amoon musiciens yi ak ñoom jàmm nekkoon koo xam ni théâtre kat yi ay xaritam lañu woon nekkoon koo xam ni simbakat yi ay xaritam la ñu woon kon dudd yaaykat yi mën nañ ni Sénégal ñàkkati nañ benn monument Sénégal ñàkkati nañu ko ñu dootul am ñu koy ñaanal yal na suuf woyof ci kawam moom dudd yaaykat yi ku jege woon famille El Hadji Badara Mbaye Kaba ñu koy jaale képp koo xam ne bokk nga rek ci famille El Hadji Badara Mbaye Kaba moom duudu yaaykat yi ku bëggoon Seydina Mohamed la jina xombaay yow mi dëkkee néegu suuf boo demee waxal ñu duudu yaaykat yi askanu Sénégal ñàkk nañ ko ñu dootul amati njabootu King Production yépp ñoo ngi àndandoo di jaale famille duudu yaaykat yi di ñaan yàlla yàlla na àjjana nekk këram viejo, los guanchalos viejos.